faal laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah Amdi Faal Seex Mustafa yàlla daal faal bengo Amdi Faal Seex Mustafa yàlla daal faal bengo Amdi Faal Seex Mustafa yàlla daal faal bengo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 maam Serigne Fall gépp mu mel ni jataay bi li ko waral kilifa yi jiitu leeral nañ ko muy waajal bisub seexul xadim boo xam ne bi Cheikh Moustapha moo ko doon taxaw ci ndigal seexul xadim bi mu fi jógee ñi ko fi wóotu di ko taxawal mu mel ni baaxoo nañ saa bu ñëwee ci bis bi am jàmbaar juñ ko tudde tudde gi nag jubluwaay bi mooy lan mooy fàttaliku ay jikkoom waaye fàttaliku am njàngaleem ngir nit ñi mën cee gën a roy nit ñi mën cee gën a xam loole kon moo sabab tey jii ñu tuddee ko suñ jàmbaar ja maam Cheikh Ibrahima Fall Babal nga xam ni kooku lépp lu waa ji tàmbali ci yoon wi mën nga koo tàmbale ci moom ndax mooy ki nga xam ni moo wane Cheikhul Khadim jubluwaay bi nag ni ñu ko waxee moo di leeral aw yoonam walla leeral lenn ci ay jaar-jaaram mu mel ni tableau yi ngeen gisit ñu def ko mooy jëmmi liggéey bi boo dee table yi nga xam ni mooy wolof bi toll na ci fukki tableau ak juróom-ñeent bu dee tableau yi nga xam ni mooy français bi toll na ci ñaar fukki tableau ak juróom lañ ca tënk nag bokk na ca njëlbeen mooy fàttali ak leeral aw askanam ndax nit kenn ku ci nekk am na ay bokk am na fa mu cosaanoo mën nag jàpp naa ne képp ku dem ci aw askanam da nga fekk ci ñaari da nga ko fekk ci ñaari yi muy askanu diine askanu ngor waaye it bu doon ca la xewanti bit muy gër mi da ko ca fekk ñaareel ba it ñu leeral ca it ak jaayanteem digganteem ak sëriñ bi ndax ginnaaw bi ñu leeral aw askanam ba noppi leeral nañ ak gana jamonoom waaye leeral nag digganteem ak jaayanteem ak sëriñ bi ak fi fekkoon jamono fi mu tolloon ak ni mu jaayanteeg sëriñ bi ak ni mu jaayanteeg noom ba noppi li mu fa fekk ca jàpp ni lii dañ ko war a dindi mu dindi ko ba nga xamni tay ji kep ko jarign ci yoonu mourid da nga xamni mom moy ki wona yoon wi kon lola leral lañ ko ci inshallah allah ci joggé ba diko ko ba diko ko da danaan firdé ñaaral bayit ñu wax am jangam ndax yaakar na ñëpp ni ngui koy déggé ak nam démé ku ku délo ci tableau yi da nga xamni ne woote na ndax dafa jang ba li ñëpp xam mu xam ko ci alcorane ak ci diiné ba peeg yi doora nak am yité ju mat sëkk muy fa suñ borom di wër ko fa suñ borom. kon jéego yooya la dox ba gisanteeg seexul xadim ñu jaayante seen jaayante ba bokk na ci liñ ci leeral mooy seen jaayante ba nan lañ jaayante woon ak it kañ la fa ñëw ak lañ waxante maanaam naa wax ni bu doon ab protocole la luñ si ñeente ba sëñ bi nangul ko am ci yoon wu ko sóob nag mooy soob yoonu liggéey yoonu dëddu àdduna yoonu jaamu yàlla waaye yoonu toroxlu bàyyi àdduna ngir ragal ëllëg fekk moom it lool loolu la sabab la woon. buñ jógee ci tableau nanti leeral nañ ci digëntem sëriñ bi bimu mu bimu démé ci géej gi ban ban taxawaay la am wala sax la dama dem ci géej gi taxawaay bi nga xamni amon nako ak bi démé ci gi bimu amon ngir sëriñ bi Wa ci waye taxawaay bimu amon ci digënté njabot gi fi bayyi ci seenu dundu waye seenu laaju ci ñom lepp taxawaay bam amon ci ginaaw sëriñ bi ci géej gi ko ci biir bi ñi bisé ci ay pakam muy ay kërëm nga xam ne daanaka kër gu mu am li ci ëpp ci wetu wetu raay lay nekk wala wetu tefes ndax xamoon na ne sëñ bi saa buy ñibbisi benn day jaar ci saxaar wala mu jaar ci bato xam mu bëggoon saa bu ñëwee rek dana am am fu mandal li nekk du tumuranke kon loolu bokk na ci ay këram yi ci ëpp boo ko demee foofu nga koy fekk waaye leer lañ ci ay jikkoom maanaam jikko yi mu yoroon nga xam ne tey jikko yooyu bu ci àdduna sépp royoon rawatina jullit ñi rawatina murid yi kon day mel ni mboolem la mag ña amoon démb ak yoon wañ jaaroon des na ko am kon loolu incha allah leer nañ ko ci waaye leerañ ko ci nag diggante moo ak jumaa ji taxawaay bi mu ci amoon rawatina raay bi waaye digganteem ak Cheikh Moustapha ci taxawoo bi gi nga xam ne taxaw na ko ci ginnaaw Cheikhul Khadim mooy taxawaay bu fés boo xam ne bi incha allah mbokk yi di ñëw danañ ko gën a leeral mooy taxawaay boo xam ne bii bu amutoon kon dana doy waar mooy taxawaay bu boobu saayir waaye taxawaay boobu baatin waaye am ay dénkaanam yoo xam ne bii képp ku ci delloo kon da nga xam dëgg-dëgg moom fan la nekkoon ak fan la tegoon ab tànkam ak lan la digle kon ku ci dellu rek danga nga xam ni mi ñuy wane ci biti mi ñuy wane ci biti ak moom li mu doon digle da ngay daal xam ni kon am na ak wute waaye jóge nañ ci it leeral ay njabootam muy ñu ko wuutu ñoom yan taxawaay lañ amoon yan taxawaay lañ amoon ci ginnaawam ak bi mu fi jógee. waaye leeral ñi nga xam ni mooy ay ndénkaanam waaye rawatina diggante nag tubaab bi nga xam ni ay jéego yu am solo seq nañ ko incha allah yooyu sëñ Mbàkke Lo mii dana ci ñëw bu ko defee xam ci tënk suñ demee ci tablo yi lii mooy li nga xam ne liñ ci tënk liñ ci tënk nag loolu yonent bi alayhi salaam waxoon ni suñ diine ji dañ koo tëral ci tuxal waaye tëraluñ ko ci xel lii ñu wax lépp ci ñi nga xam ni ñoo ñoo leen fi nekkal ñu leen doy nga xam ne xam nañ cosaan li xam li ci nekk lépp ci ñooñu lañ dem tuxale ko fa fa ñoom nga xam ne kon lépp luñ gis fii doonu lu ñu dañ koo xalaat waaye ñi aju ci ñoom ca ca ca seen kilifa doy leen ñooñu ñooñu ko leeral ñu tënk ko fii nag ngir bëgg nit ñi man see jariñu bu baax a baax ba képp ku fi jógee tey jii nii danga xam dëgg dëgg nag kon kan mooy maam Cheikh Fall ak ci wan yoon la nekkoon ak nan lañ nan lañ ko war a royee kon lii ab tënk la ci ne ci tableau yi waaye bu ko wëree rek incha allah lépp des ko gis sëñ mbokk mi di si Ahmadou Ndiaye ngirane bu ñëwé dana gëna léral digënté mam maam Serigne Fall ak Cheikh mustapha rawaté nak seenu askan fi ndaje ak ak seenu digënté inshallah it buñ ci jógee nak dana jox sëñ Mbàkkeloo mom mi dana ñëw ci digënté maam Cheikh ci li nga xamné ñëwul ci tableau yi digënté nak tuba bek ak archive ga ci aju inshallah yoy dana ci ñëw kon xama ci teunk rek lolu moy nekk ci tableau yi kon noo ngi leen sant baax di leen gëreum duñ def lolu kon jox cadeau rek serigne bakilo bu ko defee mu ñëw wala ñu njëkkee sëñ Amadou Ndiaye mu ñëw nag askan woowu ma doon wax rawatina digganteem Cheikh Moustapha niñ bokkee ci démb ak niñ bokkee pas-pas incha mu leeral ko buñ ci jógee doon jox sëñ Mbàkke mu ñëw ci diggante maam Cheikh nag ak tubaab bi ak relation yi. bi ngay jàllale ziyaar bi ci kilifa yi toog waaye di gàttal nuyoo bi rek ndax mbokk mi jiitu léegi wax na ko mel na ni jataay bi xaw naa am na mel waaye noo koy jéggalu bu baax a baax mu mel ni jataay bi bokki kese ñoo fi nekk bokki kese ñaar nekku fi ñett nekku fi ñenn rek ñoo fi nekk loola nag ci lañ bëggoon a tuuti rek bañ xam ni suñ borom defut dara ci asaar lepp lum def ci coobareem la ko amale lenn lu jekki-jekki am amul li tax ñu tan Cheikh ibrahim tam moy am ci wet go xamni nok mourid yepp ko bok moy Cheikh seigne touba nun ñepp ko bok waye amaat ci benen cieur bo xamanteni ñun nun daru khodos la ko sun borom jagleel moy taxaw gi mu taxaw mourid so lolu ñu amal ko ci njukkal amel ko ci ak ñaan ñu ci it ab taxaway waxtu wu ci nek sun sun wertiliko di ko sun wété diko ko ñaanal ci walu bokk gi ngir rek relation yi mag ñi amoon mu gën a dëgër nu gën ko bàyyi xel gën ko rafetal sun borom moo ko ràbboon ci coobareem ràbbe ko nam mu gënee muy askan yu sell yoo xamante ne ni mag ñi nga xamante ni réew mi dana leen bàyyi xel ci diine daje nañ ci damay wax ni suñu ñëwee ci soxna suñu wax ba gay ak ku ñuy wax aram gay ak ku ñuy wax caane gay masamba gay mooy seen waajur ware ngom teeñ famila gaar ci néegub jaafuñ mooy seen waajur wu jigéen sene ba gay moom yi moo jur ale sene ba ale ba sene ba ñu bari xam nañ ko ci ndam ak mbarugu sene ba ak njuga sene ba ak njaay sene ba ak binta sene ba ale sene ba moo jur yàlla loo Mujur jur aminta yàlla moom saa xewar Fatma mu jur xarimaam Diop moom sëñ kokki njaga isa mu jur soxna amintaloo mom tafsir makhtar bin mu jur sëñ Mounou Sow ak sëñ bara mbaru bu sene mujur jur Balla Bërgu mu jur Dam Buri mu jur soxna salilo mu soxna Antakan mu Mamor antuseli. Mujur mu jur Seexul Xadim Njuga senaba ba Njuga mu jur Masamba Soxna Jaañ mu jur Madun Awa Jama mu jur sëñ Daam Abdourahman Lo sëñ Daam Abdourahman jur soxna Aminta ñu jox ko sëriñ Mouhamadul Moustapha mu am ci soxna Mariamu ak sëñ Mbàkke Madina soxna Mariamu ñu delloo ko sëñ Mortal Fall Njaay sana ba moo jur Aram mu jur Fatim Diop mu jur Fawad Wele mu jur Alaaji Malik Binta sana ba moo jur kura ture mu jur Fatim Dieng mu jur Koura Ndiaye mu jur Maram Xaj mu jur Lawbe ture mu jur ab Absa Lawbe Absa Lawbe moo jur soxna Fatou Issa mu jur maam Thierno Birahim Aram Gay ka wax Aram Gay moo jur Kumba Diagne mu jur maam Ndiaye mu jur soxna Balla mu jur soxna Seyna bu njaay mu jur maam Cheikh Ibrahima Fall ak sëñ Saliou Fall ak soxna Astou loolu mooy ci wetu seen bagay bu dee ci kër sayar maram demee ci njare sayar maram moo jur sëriñ Saliou as Diop moo jur itam sëriñ Ndiaye Fatma Diarra moo jur ma Koddu Ndiaye moo jur sëñ Ibrahima Ngoone moo jur sëñ sayar Ndiaye moo jur itam ma Ndiaye Fatma ak Abdoulahi Ndiaye ñooñu ñooy góor ñi jigéen ñi soxna Roqee Ndiaye Saar Ndiaye ak soxna Saar Ngóone njaay ak soxna Fatou Sayer Ndiaye ak soxna Fatou Kumba Ndiaye sëriñ Ndiaye Fatma Diarra moo jur sëriñ Mamor Ndiaye mu jur sëriñ Daaru Xasan Ndiaye njabootu sëriñ Daaru sëñ Ibra Jëmba ngi ni toog kon mel na seeni bokk ngeen fekk si ba tey soxna Roqaya Ndiaye mi nga xam ne moo di jigéenam moo jur Ahmadou Fall Roqaya mu jur maam Cheikh Ibrahima Fall batay tey ci ci njare la kon nga gis ni bokki kese ño fi daje su dee ci wetu palen gi eh, ca wetu buur ga muy nga xamni mo jur baran baran jabe fal ak yoro fal nga xamni ni rab bam tagali ko nguur yàgg na ndax ak fi amadou fall mel na ni ñaar téeméeri at wala ñetti téeméeri at war na koo mat kon ba mu tàggali ko nguur yàgg na dañu wutee yàlla ndax ñaar ñii kenn ki daa wuti nguur baran njabi dem wuti alxuraan yoro dem wuti nguur bi ñu ñibbisee mel na ni baraan indaale na alxuraan indaale na xam-xam waaye jaar kajoor sanc fa ab dëkk ñu koy wax pëleen xëy na fa mu newoon dédd ga muy garab yu bari yu sax ci ñu naan pëleen dédd ñu ne bind na fa fanweeri kamil doon fa jàng di fa jàngale loolu kon dañuy gis ni doomi soxna lañ yoo xamante ni teel nañoo sóobu wut yàlla mbokkam mi nga xamante ni ni daa wuti woon ngóor it ba am na ngóor baraan njabi del siwaat kër baayam njabi faal gi ñu cosaanoo fekk itam yoro ñoomay ñibb si ñu bokk nekk fa mu mel ni am na ngóor kii am na alxuraan te ñaar yooyu mënuñoo bokk benn jataay te fonk kilifa ak toppante yàgg na ci biir askan wi baraan dem dànd leen tuuti sanc fa kër foofee mu sanc kër ak sànqaay ne fa buñ ne ana baran jabi ñu ni ma ngi ca sànqaay ga di jàngale alxuraan ñuy baran jabi sànqaay wala fi nag léeg-léeg dañ koy yàq li ñuy wax daanaka kenn du xam lu mu doon baran jabi moom bi bi mu matee samp kër daa dem njare jël fa soxna suñuy wax Saar Njaay am fa Amar Fall Saar Njaay soxna sa Saar Njaay la tudd Amar Fall Saar Njaay moom it bi mu matee samp kër daa delluwaat kër nijaayam jël fa soxna soxna Roqoye Njaay mu am fa Amadou Fall Roqoye Amadou Fall Roqoye moom kër delluwaat njare foofii ci kër nijaayam jël fa soxna Seynabu Njaay am fa maam Cheikh Ibrahima ak sëñ Saliou Fall ak soxna Assou Diop maam Cheikh Ibrahima Fall mu tudde ko nijaayam sëñ Ibrahima Ngoone Ndiaye sëñ Saliou Fall mu tudde ko Saliou Assou Diop ñu doon tudd nga gis ni kon ay bokk lañ yoo xamante ne ni ngor ak diine moom lañ leen xame woon démb ak ki démb te yooyu mooy yi nga xamante ne ni mooy valeur yi nga xamante ni moo téye senegal ndax ngor mooy bañ a ñaaw sa diggante ak sa borom bañ a ñaaw sa diggante ak jaami yàlla yi nga dëkkal jom ba jom mooy bañ a des ginnaaw njare dañuy gis ni kon ba tey sëtub Demba Njare ndax Demba Njare moo jur Samba Sadio mu jur Amar njaay mu jur Bakkar Waqi mu jur Ma Ndiaye Fatma mu jur Sayar Maram Sayar Maram moo jur Roqee Fall mi jur Amadou Fall Roqee kon doomi soxna la yoo xamante ne ni diine lañ leen xamoon kon la Sëriñ Tuubaa doon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni xat ustufe min xiyaarin maa ata ahadun minhum bi maa yuxjilul axyaara wal uzama loola moo dikkaat ci biir askan woow yi Moy, dañ ko tan ci biir tan fi yo xamanteni ni kenn ko xamanteni ne ni diine musna ko wak wala ngor mus ko tilimal amul kon ay jikko yu valeur yu rafet mom ci neeg bobbi ci la gane aduna loolu itam liñ ci djublu rek moy goné yi dafa toujours damay wax ni Cheikh Rafal mi ñuy waxtaanee ci biti bokku tak Cheikh Rafal mi ñi wër mi andon ak seigne touba té loolu dafa mata xam ndax bitti bi yëngu bi bari na toujours dama koy wax gone yi neen Sëñ Tuubaa mi ngeen jàpp bokku tak seigne touba mi ci téré yi mi ci téré yi lañ soxla te loolu yi mu bind ci téere yi loolu Cheikh Rafal doon dund mooy yaroon na ab xolam soññ na ab xolam ba mu yew mu yar ay cëram ba mu yaru te loolu ku gis njaboot tam wala nga dugg ci seen biir kër yi da gis ni seenu xol yàññ na seeni cër yaru na muy woyof nañ nangu nañoo muñ yaatu nañ tabe nañ lewet nañ gore nañ dégg nañ digal te loolu rek moom la ñuy wut ci la ci aw jàng lool la ñuy wut ci jaamu yàlla loolu la ñuy wut ci lépp loolu lañ cay wut maaruuful karux yi daanaka xamutoon dara waaye imaam Saafi'i yi ko daan toogal ci suuf mujj doomam di ko yedd mook Ahmad ibnu Hanbal naa leen ni ngeen ba def xam-xam ak kër xii mi ngeen di toogal ci xalam ñu ni ko laa ilaaha illallaah yow xamoo dara kër xii ni mel moo tax ñuy jàng bu ñuy wut xam-xam ni kër xii mel tax te loola dañuy gis ni bu ñuy càmbar dundu ci ay rafal ca loola lay feeñ foofu lañ koy fekk foofu lay kampe ñu gis ni itam ni taxawaay bi mu taxaw ànd gi mu ànd ak sëñ bi loolu yàlla ndax ay engagement la jël ci suñ borom moo ma wax ni ma sëñ Bamba moo la moom loolu engagement la responsabilité la tey loolu kuy tëdd nelaw du ko am mooy kon fanweeri at yam gisut sëñ Tuubaa am na ci lu mu newoon loolee mu newoon lu dëgër la lu wér cëng la mooy jaamu yàlla mooy lim mu fekk sëñ Tuubaa loola la yoroon sëriñ bi nag day kiimaanu yàlla boo xamante ni ni moom lépp lu mu dugg soppi ko waaye mag ñi newoon nañ ci dara damay wax ni coow li ñi ko indi mooy bi conteneur bi wàccee te bari njariñ ñi amoon colis ci conteneur bi ñooñu indiwuñ coow li waaye ñi gis conteneur bi mu am njariñ ñooñu ñoo indi coow li mooy yu bees yi sosu at gannaaw bi rek yooyu yëpp loolu moo ko waral waaye li ci des mooy taxawaay bi mu taxaw gannaaw sëñ Moussa ndax waxtaani Cheikh Ibra moom xajul ci jataay bi ndax xam nañ melokaanu mbaar bi ni mel ak kilifa yi toogaay bu yàgg bi waaye xëy na ci jumtukaay yi xew danañ ci waxtaan waxtaan wu gën a yaatu boo xamante ni nii incha allah nit ñi danañ ci jot waaye dañu gis ni sëriñ bi ni mu toll ci jamono ak ni mu ko feesee ak fi ko nit ñi tolloon mu xëy xëy wane gannaaw te sëñ bi bindul foo xam ne dafa bind saraaxan ci mu leer mu ni bu ma fi jógee bopp yoon wi la ci Mouhamadou Moustapha toog te fu bal mu sa ci àdduna tey ma yilif ko indi waaye yaa nuy moom moom kenn du ca xeex te loolu itam sëñ Moussa mënul woon ni may jiitu waaye bi nga xamante ni bi dem na ci le 19 juillet 1927 le 23 bokk yi daje nañ nga xamante ni àllarba alxames ajjuma gaawu bokk yi daje nañ ngir waxtaanee ci seen biir ku ñuy sam waaye waxtaan wa mel na ni kàddu ya déggoowut ndax kenn ku ci nekk am na ku nekk ci sam xel am na ay kàddu yu fa jóg ba sëñ Balla Fally jóg jóg taxaw ni Balla Fally de moom lànk na lànkale Mandoumbe sëñ Mandoumbe jóg taxaw ni Mandoumbe lànk na lànkale Ibra Fall te ñooñu ku ne xam-xam am nit ay pieds la ñu dëgër a dëgër ci yoon wi kon dañ doon nas te la te itam masorong sel ñam nga xamanteni ni ab sel wi sel Cheikh ibrahim ko tarbiya moko jox seigne Moussa te la tax mu jox ko itam moy ay mbir la moy lu jëm ci walu yonal seigne beeg bi bokk yi dajee lañ wax xel mënu ko nangu ñu ni nañ ci dugalub jàmbur mu jox ci Cheikh Masoro looloo ko indi seigne Moussa yoy yep ay ay ay taxawaay la yoo xamante ni nit ñi dañ ko wara xam te dañ ko wara bayyi xel ndax lolo moy moy yoon wi yoon wi dañu farlu ci bind motax lu bare bare daf lo recc li nu recc nak li ko nit ñi bëgg a wóotale loolu du palaasam ñu gis ni loolu yi nga xamante ne ni am na ci jataay boobu taxut mu réglé wu gouverneur général da caa dugg ci la 25 juillet ndax gouverneur général bi sëñ bi demee ñëw na tuubaa xool situation bi ni mu demee ne nañ leen envoyé ay garde ndax xëlëf xëlëf ji mu di def ñu ne ko déedéet du ko jar su dee ñoom rek problème du am mu ni kon bu fi kenn def 48 heures ku fi def 48 heures dañ ko digaleeg moom mag ñi ku siyaare dem le 25 gouverneur général daa wax commandant di charcal bi ni ko nañu woote na woo chef de canton yi na mboolem seexi yoon wi ñu daje biñ dañuy gouvernance bi gouverneur ñëwee dafa wax yéen li ma leen faal ni ko àndal ak commandant ak chef de canton yi ngeen dem ca tennis bu Jurbel ngeen réunion yi wax seex yi ni leen lañ dem ci péncum njaarim mi ngi ñëw biñ ñëwee ci pénc mi seex yëpp daje ñu teg taabal tuwaab bi toog ñi àndal toog gouverneur général wax Sëñ Moussa ni ko dama mënut dama mënatul a wéy ci bi sëñ bi demee ba léegi kenn ku nekk may woo dama ci mënatul a wéy mënuma ñëpp di ma woo mënuma itam bu ma soxlaa woo ñëpp da ngeen di daje ci seen biir ngeen jiital kenn bu ma soxlaa moo yoonu murid jaar ko ci moom bu ma yoonu murid soxlaa jaar ko ci jaar ko ci moom waaye mënatuma kenn ku ne di ma woo te booba xar kanam yu bare nga fa waaye mel na ni pexe amul ndax solution gënnul te booba Cheikh Ibra ñëwul sëñ Moussa ba ñu waxee dañ nañu woo bàyyi Cheikh Ibra ndax moom fekkee woon na cosaanu mbir mi moom bi faaw mu am fu mu jafandu ndax ginnaaw xar kanam yi ñi ñëpp ñu ngi fi te affaire bi mënut a réglé wu te Cheikh Ibra man mën na bu Cheikh Ibra ñëwee solution dana am ñu dem wooyu ko mu ñëw biñ ko woyee bi mu ñëwee bi mu jubee sëñ Moussa la wacce kaala gi newoon ci bopam wacce ko ci mbagam lamb posam summi ay dalam sukura jox seigne Moussa loxo su jot jox adiya addiya tubaab bi doon ragal bi mu yoroon ñu ni silence ñett yoon mu ni laajotuma kenn lima don set gis na dama defon won ki ñuy woy bu dikke moy don set ndax ginnaaw ñepp a fi joxuñu kenn autorisation pour mu wax ki xaar dama bu ñewé moy don set bi moy don kilifa waye ndekete mom bimu ñewé jamm mustafa loola moo moo réglé lool waaye loola seebra daal daal di jóg taxaw daal koy joxoñ ñu ko wéyal ak sa diine wéyal sa àdduna te bàyyi noog suñu diine laa ikraha fi diin diine amul forcé loola moo lay xamal ni la ci xam-xam la doon dox moom dund ndax loolu mu jëfandikoo ku maîtrise wu doo ko xam mu ne ko wéyal sa adduna te bàyyi noog suñu diine laa ikraha fi diin daal di wax mbooloo mi ni leen Muhammadu Mustafa mii ni nu bàyyam doy woon ba nu ànd ak moom ku mu doy ñëwal ànd ak moom ku mu doy demal seeti ku la doy nga ànd ak moom nun ñi mu doy nu ànd ak moom keroog mbooloo bari fa lañ ko joxe loo moo tax ñu ni musta toxoo ko yox yox sëñ bay jaxate wax na ko ne man nangu naan nangoo ma war mooy kon am na lu xewoon mu ne ñun ñëpp dañ daan bañ a pos-pos loo ko bañ ku nu gën te ñoo yeey waaye li fi nekk te te wér mooy yaa ne yow Moustapha loola ab lijjanti la boo bu bu sew la te loolu daf ko war a xam moo tax boo demee ci bindu tubaab yi dañ naan ñoom ñoo ñoo inséré xilaafa teewul nag sëñ tubaab amoon na ay junji yu mu doon wax teewul ci tam lislaam ñu xam ne nit bu fi jógee doomam ma koy doon ndax Cheikh Fall nee na xaw ma doon sa bàyyi doon bàyyi jàmbur kon am am na yu bare bari yoo xamante ne nii doon na taxawaay boo bee mu ca taxaw dafa cee taxawaay bu rafet boo xamante ne nii mat naa bàyyi xel. ca lu jëm ci yoonal sëñ bi dañu ko loo bëgg waxaale am nga mbari mu ko mën a yam sëñ mëndu mbay tam noonu la ko loo bëgg rek bu ñu jaay waxaale ndax sëñ Moussa daa waxoon ni li fi ne buñ ko jaay nañ ko fi bàyyi ku mag yilif ko ñu ni déedéet dañ koy dañ koy jaay ku mën a jënd jënd ku mënta jënd nga xam ne mënoo jënd Cheikh Fall ne ko lu ñu waxaaleel jëndal loolu ay taxawaay la sëñ mëndu mbay tam wax ko noonu bi ñu yëkkatee liggéeyu raay bi tubaab yi di ko laaj junni nit ak juróomi téeméer sëñ Moussa bi mu ñëwaatee xalaat bi joxe woon mooy kilifa bu ne joxe juróomi nit waaye mbooloo ma ñu ci bari dañoo gant ndax njëlbeen gi moom ñenn ñi dikk nañ ñi ci des toog nañ jàpp seen bopp doon jàmbur ñi ci des ñu ngi seetaan ba xam fa wànne di mu jógi bëtam ca saasa la ko Cheikh Fall jox juróom-ñaar téeméeri nit te nee na bëggoon naa joxe lépp waaye sëñ moo ko sëñ Modou moo ko ni liggéey sëñ Tuubaa kenn du ko akimo da ngay bàyyi ñene ñu ci def señ mu ndumbe def ci téeméer señ am sa sëtuloo bu nga bu joxe téeméer juróom benn téeméer yi ci def genn ci señ Moussa ak njabootu sëñ Tuubaa noonu itam la ci doon participer ci walu la liggéey ray ci ci ci wet bu nek la ci doon jox ba ci liggéey ba ñewal na ci bop keroog bi mi ñew mok señ Modou Mbène ñoo ànd ak Cheikh Tall ñew na ba ci liggéey ba ni leen liggéey bi gis naa pënd bi di jolli ba aras loolu lepp ay taxaway la nga gis ni daan na ci beneen jotaay bo xamanteni ni tok toog mundu melni ko rafal sa sa tour wa wi nga muy lam bañ la koy tudde tay taxon ni tam lo gis cheikh mel ni Modou Moussa rek la gis Modou Moussa rek la gis sey mundu melni ba man de bët yi sew na waaye gis de Modou Moussa rek la gis yoy yep da ngay gis ni mag ni taxaw na woon nañ taxaway bu wér bo xamanteni fi yoon wi ak seenu taxaway ak seen pas-pas ak seen pasteur moo fi fii nii loolu dañ ko wara xam buñ ko xamé dana tax sunu jéego ci kanam war naa mën a soppi ndax ab liggéey lañ ñu fi bàyyi te mag ñi fekkuñu fi ay moyens dañoo créé ay moyens pour def dara ndax sëñ Moussa moom yi magoon ci njabootu sëñ Tuubaa ñeent fukki at la sëñ loo ci topp ñeent fukki at yi manqué na sëñ Baara fanweeri at juróom benn sëñ Basiiru fanweeri at ak ñaar sëñ Abdoulaye borom dër bi ñaar fukki at ñii ñoo ca doonoon ni mag ña ca des 14 21 sëñ laa ta 14 sëñ Mourtala 21 ñooñu ñoo ci doonoon ni ay tuut kon gis ni mag ñi taxaw nañ taxawaay bu wér te it yëmut ca loolu nag sëñ Fallu ñëw na seet si waaye dañ ko toppal Moustapha Sama day dajale ba mu dajaloo mu bàyyi la fi dem kon xam-xam bi wér yoo xamante ni nii fonk gi fonk sëñ Moussa nag mosuñoo gis ku jox cër sëñ Moussa cër bi ko jox ndax sëñ Moussa fekki na ko Cees boo xamee ne karoot nga fa doon gàttandu ay nit lañ ko takk ñoo ko gàttandu ji ndax nee na doomi sëñ Bàmba ji kenn du ko teg ci fas naaru ko ñuy bajant di ko daaneel mët joom genn ak daw Baay Faal yi mel nañ ñoo xam nañ seeni njabootam ñoom ñaar la seey takk karoot gi ndax dañoo indi ay fas mun leen fasu góor yi yu baax yi fu ngeen ko jëmee ñu ne ba da ngaa wax ne Modou sëñ Modou Sa day ñëw ñu bokk cee teeru mu ne ah waxuma loolu de doomi sëñ Bàmba ji ngeen yi mu bajant mu mu ne ana Modou Diop ngeen ñu ko mi ngi nii mu ne ana Daouda Ngom ñu ne mu ne takk leen ma gis ñu takk mu ne dox leen ñu dox mu ne noonu baax la dem leen ca gaar ba ngeen teg ci doomi sëñ ji mu ñëw loolu nag lu lu rëy rëy la loo xamante ni mat naa bàyyi xel bu baax a baax muy pas-pasu Cheikh Ibrahima ak gisinam loolu mat naa bàyyi xel bu baax a baax mos ta jaawale lenn ak lenn sëriñ bi rek la dëgmalu sëriñ Tuubaa nag daan wax mag ñi ni leen yàlla nga nële man maa ngi nii ni leen fële yàlla nekk doxub juróom-ñaar fukki at man nag maa ngi nii te loolu mooy ay yeneen bi daa waxoon mag ñi ne in kuntum tuhibbuuna laa yàlla mën ngeen di wax su fekkee moom ngeen bëgg ittabi'uuni topp leen kon mat naa bàyyi xel bu baax a baax a baax xëy naa jataay bi yàgg na ni ma ko waxee woon léegi rek damay jox sëñ Mbàkke Lo mii mu am ay kàddu yu ci dolli ci intelligence su Cheikh Ibrahima Fall ndax ñi ci bitti dañ koo bëgg a teg ab nit koo xamante ne nii ab naxa naxa la boo xam ne dara te Cheikh Ibrahima moo gën a yaw ci ñu yàlla bind ndax ni mu doon doxee doxinu intellectuel bi mu doon dox ak position yi nga xamante ni doon na ko jël di ak tubaab yi nit ku nelaw du ko def nit ku ne jar moo koy def te yooyu yëpp gis nañ yu yu mat a xel la yoo xamante ni ni mi ngi ci texte yi tubaab yi bind nañ ko bu ko defee loolu dafay ñulugaat gone yi ñu delluwaat gëstu ba xam lu ñuy toppee sëñ tubaab nan la ñuy ànd ak sëñ ndax seetloo nee na lii sëñ bamba yor ku ci bëgg dangay ngay def ni ma ko def noonu yi mu def sëñ bamba nag noonu yi moo mat a bàyyi xel si gël te te bul faale ka wuy see ka farja ki su fekkoon da ngay laaj carte say candidat na yaa wat ña daawoote ña daawaate Moustapha